suñ gëmoon ne rasulullahi la kañ coow du am ba fitna di am <laughs> dindi leen ko ba mu set da ngeen di bind muhammad ibnu abdallahi ñun moom lañ xam waaye muhammad rasulullahi xamuñ ko yonent bi Seydina Ali ñëw wax ko yonent bi yonent bi ne ko comme moom xamuloon boo bindoon turam sax xamu ko du ko mën a liir yonent bi te jàngal ñëpp mu ne Seydina Ali faral fi rasulullahi ji nekk Seydina Ali ne ko man baaraam bay far rasulullahi du doon sama bos defuma ko mu wax wax wax wax yonent bi euh, Seydina Ali bay ne ko rasulullahi baaraam ba koy far du sama bos yonent bi dafa mujj salaay salaam ne Seydina Ali won ma fi rasulullahi ji nekk Seydina Ali jël baaraam yonent bi teg ko fi rasulullahi ji nekk ne ko fii la tàmbale fii la yem yonent bi jël bi effacé ko ne ko yóbbuwaat ko ci ñoom ñu yóbbu gis muy Muhammad ibnu Abdullahi ñu adopté ko wala déet loolu stratégie yooyu la Seydi Hadj Malick doxaleek tubaab bi waaye wanu leen benn yoon kiraama léeg sax mu am luy niru kiraama ñu foog ne kiraama la fekk du kiraama comme góor gi may wax muy maam Abdou Hamid Kane radiyallahu taala anhu euh, keroog bi nga xamee ne ñu ngi wasifa ca Kaolack gouverneur gouverneur ba fa nekkoon muy Bolekar lank ne wasifa wi kenn dootu ko def ci kaw ndax daf leen di tànqal <laughs> lu bon yàgg na fi mu ne wasifa wi kenn dootu ko def ci kaw ndax daf leen di tànqal góor gi ne ah kon de musiba dana am ndax ñun ku ñu mën a teree wasifa ci kaw gisuñu ko waaye nag gannaaw dama am kilifa gu ñuy wax Seydi Hadj Malick balaa may jël benn position naa dem yëgal ko li nga wax góor gi dugg saxaar rek jubal si Tiwaawan ñëw fekk Seydi Xaaji Malik boobu Maodo ci gaar bi war a dem Ndar ci gaar bi la ko fekk mu ne Seydi Alxaaji Malik ah gouverneur de am na lu mu wax nee na wasifa wi daf koy tànqal beneen a bëggatu koo dégg ca kaw buñ ko mënee di def ci suuf nag ñu def ko ci suuf waaye wasifa ci kaw moom bu mu amati te nag fas naa yéen a jëflanteeg moom te balaa may jëflanteeg moom yaay sama kilifa ma ne naa ñëw wax la ko nga dégg ko ba xam loo ma ci xalal mu ne Seydi Hadji Malick ne ko ah baax na bàyyil rek ñu jox la ñaan nga dem ñu bokk ñaan yàlla waaye bu fitna am ci la Seydi Hadji Malick jël ci gaar bi la taalifee lii ma lay wax muy alaa ya rasulallahi ya afdalal wara fa haa nahnu fi deqin shadidil taraakumi fa haa nahnu fi dayqin walam narju farijan siwa llaahi walhaadi li sublil makaarimi saddaqta ala ma qulta fi awdi diinina gariban kama fi lbad'i ya xayra rahimi ilahi fajcal ahlana ahla gurbatin wa ahla ittibaa'i sunnatin fi taraxumi naaddu alayha binnawajizi misla ma bihi qaala fi lcisaai nadratu haashimi dal jee teg nauzu billahi min charri lkufféeri wa min charri nasaari wa min charri salaatin wa min wazirin wa jinnin summa zi xiqadin fammin wa aynin wa inin wa shayatin wa zalimin wa munafiqin wa zi xasadin wa man tafassaqa ya rahmanu najjini min annasaara wa man xafaw tariqahum yallaahu yaa xayu yaa man qaala uduuni inni daawtuka za xawfin fa xuz bi yeddi yaa ja ila alxaali bayna alkaafi wa nuuni mu xam ne dafa am kilifa mu ne yaa cheykhana ahmada tijaani ملجأنا أعلى الوسائل للرحمن من جانا هذا الزمان زمان هال جملتنا في كل يوم بما نخشى يخشانا وأنتم الحسن في شيء نحاذره بك استغزنا بما نرجوه ما كان يا أولا يا آخرا يا ظاهرا نور بصائر عبدك المتظلل لا يبتلينا الله جل جلاله ببلية الإعراض عن ذاك الولي أماتنا الله على دين نبي وحب شيخنا الإمام الطيب ñaan nga jeex mu jox ko góor gi Abdou Hamid ne ko bu coow jib soo demee su ngeen wasifa ba noppi ñaan leen ko te bàyyi ci loxol yàlla ak yonent bi moo tax mbay doon de rahmatullahi alayhi wa radi ndeysaan daan na wax ni Maodo Maodo la mu wax alaa ya rasulallahi mu ne nit ñee dégluwul rek allo ya rasulallahi la <laughs> waaw te it nag boo ko weccee rek mu dem alaa yaa rasulallahi mu ne déedéet dafa ne allo yaa rasulallahi mbay doon ne rahmatullah alay mbay doon ne mbay rahmatullah alay wa radiya anhu yal na ko yàlla doon li yërmande loolu la daan wax te mooy dëgg alaa yaa rasulallahi dafa tëb tëb rek ne yow ki yàlla yoon yow laay waxal yaa afdal ñu ne yónnant yëpp jóg mu ne déedéet yéen ñëpp toog leen 124000 yi waxuma yéen yaa afdal yaa afdalal wara ki nga xam ne moo leen gën yéen ñëpp laay waxal yonent bi ne ñokket mu ne ko waaw kañ fa nahnu fii di xirsa di del taraakumi man ak ñi ma àndal de ñu ngi ci ay xat-xat waxal nag ci xat-xat yooyu bi xasida bi ni ma ko tuddee jeex mu jox ko góor gi Abdou Hamid Kan dugg ci train bi jubali ndar góor gi duggaat ci train bi jëm Kaolack jubali Kaolack ci gaar bi la ko fekk ñoom ñaar ñu échangeante mu wax ko li mu koy wax Maodo taalif ko ci gaar bi moo tax Seydi ma Malick bokk ci ci gaar bi la ko taalifee jox ko mu dugg ci train jëm ndar moom Maodo góor gi Abdou Hamid duggaat ci train jëm kaw la ñibbisi jubali kër gouverneur ñoom dañoo amoon fit dem ne bolokaar dañ doon xeex maag yow gañe naa la bolokaar ne ko noo ma gañe mu ne ko dañ doon xeex gañe naa la mu ne ko noo ma gañe mu ne ko sama sëriñ jox na ma ñaan goo xam ne tey nga dee ci waxin mu ne ko ah mu ne ko gañe naa la jeex na mu ne ko lan la mu ne ko di ci xam dara ñu julli fajar rek góor gi Abdou Hamid kan yëkkati ñaan gi alaa ya rasulallahi ba ñaan gi daanu xoolal diggante jullik fajar dañ julli fajar midi une heure julleeguñ tisbaar télégramme ñëw kaw la ne relevé nañ bolokaar yóbbu ko France directement ndax dégg nga wax bi bu baax midi une la télégramme jóge France ne euh, relevé nañ Blocart yóbbu ko France convoqué ko d'urgence Paris mu dem Paris ñetti weer la fa def feebar dee kon la mu ko waxoon ne gañe naa la amut moo tax nit day am kilifa lu la mën a dal nga dem seeti sa kilifa moo tax Seydi El Hadji Malick ñoom dañ ko doyloo woon te daawuñ ko jiitu ñun nag léegi da ngay am sa kilifa naan ko jaaral fii jaaral fii maanaam su la santee lu dëppoowul ak sa bakkan nga ne xamut dara ker boo la waxee nag lu dëppook sa bakkan nga ne moo aay te ñoom mësuñu xalaat dara lu dul Seydi Hadji nga xalaat ba pare moo tax it nag lañ amoon ñun pour ñu am ko dana jafe parce que ngëm nga ñu amoon ak dal ba ñu amoon ak confiance ba ñu amoon ci seen diggante ak seen sëriñ ñun amuñu ko ma joxaat la beneen ci diggante Seydi Xaaji Malick ak mag ñim doon àndal alxaaji Cerno Saidu Nuuru mii tey taal nga xam ne lu ne Maodo jëflante na koog moom alxaaji Cerno Saidu Nuuru bi muy ñëw ci Seydi Xaaji Malick am na 52 ans kon boobu du xale juróom fukki at ak ñaar bi muy ñëw ci Seydi Xaaji malik moom la am te leetara ko booleeg Seydi Alxaaji Malick ndax dafa nekkoon ca góor gi maxtaar sàll moo doon sëriñam góor gi astafirlaa góor gi maxtaar saaxo ca fuuta moo doon sëriñu Cerno Saydu Nuuru fa la nekkoon di jàng góor gi maxtaar saaxo bi fa Maodo nekkee di jàng bi fa astafirlaa bi fa Cerno Saydu Nuuru nekkee di jàng góor gi am bés muy tukki ñaar lañu woon ci daara ji ñoom mag mag yi daara ji Seydi Aji Malick ak men astafurlah Cerno Saidu Nuuru ak meneen moromam góor gi di dem na leen dënk naa leen daara ji lu fi mën a am ci masalaak lu nit ñi di soxla doxal leen ko góor gi dem ba am ñetti fan am ku faatu ci dëkk bi ñu war koo miraas ñu woo leen ñoom ñaar pour ñu miraas góor gi bi ñu miraasee góor gi ba yeggal am ñu d'accord ci miraas mi am ñu d'accordul ci miraas mi ndax Thierno Seydou Nourou dafa ne nii la geneen góor gi ne nii la moom it du ma tudd turam ndax am nay set ñu ne ah comme suñ sëriñ nekk ko fi nañ bind lettre jox ko ndaw mu yóbbul ko Seydi Hadji mu àtte ñu <coughs> ñu seet kan la ci miraasam jub bi ndaw li indee leetar bi ñu wax kenn ku nekk ni Thierno Saïdou Nourou miraase ni keneen ki miraase bi ñu waxee ñépp sa Maodo liir lettre bi ba mu yeggal mu bind beneen lettre lettre bu rafet dal di leneen ah yéen ñaar ñëpp boroom xam-xam ngeen waaye kenn ki day diw sàngam dafa juum juum njuumteeg boroom xam-xam rek a ko dab waaye nag ki miraas mi ki miraas miraas mu jaar yoon kooku la ñuy wax Saidu Nuuru miraasam moo jaar yoon ki ci des nag dafa am njuumteeg boroom xam-xam rek waaye boroom xam-xam la bi leetar yi yegsee góor ga it nangu ne Maodo lu mu àtte ànd nañ ci ndax boroom xam-xam la Cerno Seydu Nuuru nag ne ki àtte lii dëgg-dëgg bëgg naa balaa ren di déwén ma dem seeti ko gane ko sëriñam ñëw mu wax ko ko sëriñ nag léeg-léeg day fiir du bëgg surtout taalibe bu am njëriñ boo xam dara doo bëgg mu sori la bi ko ko Cerno Saydu waxee mu ne ko da ngay bàyyi ba déwén waaye ci diggante bi comme nawet baa ngi waaj a jot danga may béyal tool <coughs> soo ma béyalee tool bu tool bi yeggee nga góob ko indi jox ma sàkket kër gi ba mu wër ba nekk benn bunt ma doon laa libéré nga dem ku ko waxoon sama classe gi nga xam ci ciipatu la la cay tagal dem yoonam Cerno du Nuuru am dal ne ko baax na nawet jot mu beyal ko tool bu rëy yàlla def ca sutura tool ba meññ mu góob ko muy lu bari mu def ko ci saaku indil ko sëriñ bi mu des nag sàkketal ko kër gi mu bàyyi ba dugub yi boobu gattaxi dugub yi dugub yi la ñuy sàkkete mu dem gor defaral ko sàkketal ko ba mat sëkk ba nekk bunt benn bunt mu ñëw ne sëriñ bi ah la ñu waxante woon de mat na léegi nag lu ci des mu ne ko tàllalal ma ñaanal la nga dem góor gi Maxtaar Saaxo Cerno Saidu Nuuru tàllal loxoom góor gi ñaanal ko mu ñëw fekk si Seydi Aj Malik kii wan la modeste Seydi Al Hadj Malik boobu Cerno Saidu Nuuru am na 52 ans bi mu nee cëpp rek lam ko njëkk a laaj foo toll ci wàllu wàllu àlluwa mu wax ko ndax am nga soxna gis nga moo tax ak célibataire dara wóoru ci ndax am nga soxna mu ne ko déedéet mu ne ko ah kon de waxtaan wi balaa neex am naa fi doom bu jigéen danaa la ko may pour nga mën a toog ci kër gi gis nga ci la ko Maodo may doomam bu jigéen moom Seydi Hadji Malick Thierno Saïdou Nourou doomu Seydi Hadji Malick la njëkk a denc Maodo may ko doomam bu jigéen daal ne ko ah, fii nag doo fi taalibe kenn du fi taalibe waaye rawati yow nag yow yaay sëriñu kër gi ndax Cheikh Oumar mooy sa maam te moom moom moo jox sama nijaay maam alfa maam Alpha ma jox kon yow sama sëriñ nga ndax Thierno Saïdou Nourou Nouroo ko jur Nourou Cheikh Oumar moo tax ñu naan Thierno Saïdou Nourou ku ñuy wax Nouroo ko jur nuuru moomu Cheikh Oumar a ko jur. mu ne ko kon yow kenn du taalibe ci kër gi waaye yow rawati yow yow sëriñ nga ci kër gi mu ne ko kër gaa ngoog njàngale maa ngoog del jàngale waaye sama diggante tubaab bi nag doxale naa la fi. lu luñ ci war a wax demal nga wax ko luñ ci war a dox demal nga dox ko looloo taxoon Thierno Saïdou Nourou diggante Seydi Hadji Malick ak gouvernement bi moo doon porte parole bi ba nim génn àddina moo tax bi fi Senghor diiran li fi Senghor nekk yëpp Thierno Saïdou Nourou di dund mooy porte parole du Seydi Hadji Malick Thierno nag bi muy ñëw ci moom xam nga booy dem ci nitu yàlla doo wóolu 100 pour cent boobu Thierno li mu yor ciy jinne kenn xamul nu mu toll mu libéré ñëpp. ba mu des ñeent mu ne ñeent yi mu bi mu ñëwee ba jub Tiwaawan mu ne ñeent yi xaar leen ma ci bunti dëkk bi ba ma waxtaan ak góor gi ba pare ñoo ñu taxaw ca bunti Tiwaawan di ko xaar mu waxtaan ak Seydi Hadji Malick niñ tënkee wax ba tënk seen wax yépp Maodo ne dafa mel ni nag wàllu jinne moom tarixa bi da koy tere yeewi nga ñëpp nag waaye ña ca bunt kër ga di la bunti dëkk ba di la xaar ñeent yooyu boole leen ci nang leen wax ñu dem <coughs> kon gis nga ko ko ko koo ëpp li bagage it daanaka mënoo ko yilif waaw ah, mu ne ko ñeenti ya ca des nag te nga ne ñu xaar la ca bunti dëkk ba nang leen libéré wax leen ñu dem mu ne waa comme yàlla xamloo na la ko de danaa leen teel a libéré mu ne ko waaw kay dama bëgg rek nga yeewi leen ñu dem yeewi leen ñu dem ndax tarixa bi nanguwu ko mag ñi ci nii lañ dofee woon ci Seydil Hadji Malick waaye ndofuk sago nag ndofuk boroom xam-xam encadré nag Maodo bu joxeñee ñu dagg lu Maodo bëgg ñu def waaye Maodo mosu leen def loolu jàdd yoon ndax xalaatu ko sax boo demee góor gi Peedar Diop kadalika moom it bi muy ñëw ci Seydi El Hadji Malick boobu fekk na lu ñuy jàng xam na ko lasraar rek lim ci xamoon kenn xamut nu mu toll wàllu génnee alal léegi léegi léegi góor gi Peedar Diop a ci mënoon waaye bi mu ñëwee ci Seydil Hadji Malick li mu ko njëkk a tare mooy bàyyil loolu waaye xam nga ba yor xam-xam rek doy na waaye nekkub lëbu boole ci nag beneen ndëgër bopp da ciy dugg góor gi ne ko ah góor gi Pedar Diop ne ko ah si li nga wax yëpp baax na li nga may tere kañ jox ma ko gën Maodo ne ko ah da nga yaakaar ne da ragal ne da nga foog ne li nga mën yow rek ko ko mën mu ne ko ah mu ne ko loo mën góor gi Pedar yëkkati sa jaadaam mu gis ci jàllu xaalis mu sëq ci suuf or di génn ba mu doyal mu dagg Maodo ne ko ah lii de moom wax dëgg yàlla baax na de waaye day sa compte ngay lekk ca yàlla sa compte bi nga am ca yàlla mu ngi mel ni banque loo fa déposé di ko rocci te dara duggut bu yàggee mu jeex mu ne ko compte bi nga am ci yàlla ngay dagg di lekk di wóorut Maodo def lim def ba xam ne mën na ko Maodo ne ko foo tolloog yónnante bi mu ne ko gënt ko sax mosuma koo def mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko nañ julli tàkkusaan ñu julli tàkkusaan julli timis lal malaanu wasifa wasifa ba yeggal julli gee dugg ci pantre bi Maodo woon ko yónnante bi ne ko lii mos nga koo am mu ne ko déedéet mu ne ko jàpp ci waaye nag pour nga jàpp ci foog nga bàyyi salaatul foog nga bàyyi yi nga doon jëfee mu ne ko yooyu kañ moom dakk na bés ni tey ci la bàyyi wàllu lasaraar bi nga xam ne daf ci xootoon mu bàyyi ko Seydi El Hadji jox ko salaatul faatihi muy gis yonent bi par jour rocc te dara duggut bu yàggee mu jeex mu ne ko compte bi nga am ci yàlla ngay dagg di lekk di wóorut Maodo def lim def ba mu xam ne mën na ko Maodo ne ko foo tolloog yonent bi mu ne ko gënt ko sax mosuma koo def mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko nañ julli tàkkusaan ñu julli tàkkusaan julli timis lal malaanu wasifa wasifa ba yeggal julli gee dugg ci pantre bi Maodo woon ko yonent bi ne ko lii mos nga koo am mu ne ko déedéet mu ne ko jàpp ci waaye nag pour nga jàpp ci foog nga bàyyi salaatul nga bàyyi yi nga doon jëfee mu ne ko yooyu kañ moom dakk na bés ni tey ci la bàyyi wàllu lasaraar bi nga xam ne daf ci xootoon mu bàyyi ko Seydal Xaaji Malik jox ko salaatul faatihi muy gis yonent bi par jour moom góor gi pedal Diop loolu Maodo ko ko defal mag mu ci nekk ba mu la nee bàyyi li nga yor daf la parce que wolof nag moo ko wax moo la ne ku lay bàyyiloo li nga yor na la jox lu ko gën <laughs> waaw ku lay li nga yor na la jox lu ko gën Seydi El Hadji fii la jaar ak góor gi pedal Diop waxoon naa la ca ba passé fi mu jaar ak maam Alxaaji Rawaan wax naa la fi mu jaar ak maam Abdul Hamid Kan wax naa la fi mu jaar ak Cerno Saidu Nuuru wax naa la fi mu jaar ak mag ñu bari mu des nag li nit ñi doon wax ni kiraama la ak du kiraama Maodo dafa waxal boppam ni yàlla musal na ma ba mosumaa jëfee kiraama ñu ne ko waaw yi am nag mu ne loolu yëpp yàlla la neex rek mu ne ndax góor wali buy wane kiraamam ni mu ñaawee ci molo mi awliya om yi moro mi yi mu ngi mel ni julli jot ñépp sàppe ñu ne la ngay góor ñu ne la doxal jiite ca kanam nga ne déedéet man tey damaa gis nga mbaax dama am régal mu ne gis nga loolu ni ñàkkee fayda góor gu taxaw naan damaa am régal moo tax mënumaa jiite mu ne ni mu ñàkkee fayda ak ni mu doyadee wali buy def kiraama noonu la mel ci kanami yàlla moo tax mosu ko nangu ba muy aji màkka yit ba mu demee ba màkka moo tax léeg-léeg nga dégg nit ñi di duufalal seen sëriñ fekk dañ koy gotti te yëguñu ko maanaam dañuy daane kotam te yëguñ ko donte sax ab Seydi Hadji kenn mënta daane kotam da ñuy faral di wax taalibe tiijaan yi ñoo koy wax de Maodo ba muy aji màkk dafa dem fekk bunti màkk tëju eh, aj gi paase mu am lu mu wax rek bunti yenn tell ubbeeku xam nga loolu xas Seydi El Hadji Malick la Maodo am na réer gu day ni ñàkk a xam Maodo am na réer gu day ni ñàkk xam aj ndax aj dafa am waxtu alxajju ashhurun maalumaat la yàlla wax aj ay weer la yu ñu xam fa man farada fiihinnal yàlla xam yàlla xam Seydi Hadji Malick xam weeru aj ne bu paasee aj dootul am Maodo bàyyi ba aj paase muy dem di aji loolu gàtt xam-xam fa la yem loolu loolu xas Maodo la la am moo di Maodo ba mu demee Makka dafa fasul woon yéene ñibbisi ba muy ji màkk fasul woon yéen ñibbisi dafa faju ndax dafa daan wax ne woo yàlla nattoowuma lu weesu ma feeñ ci biiri wolof yàlla nattoowuma lu man Maodo ma feeñ ci biiri nit ñu ñuul wax na dëgg ndax nit ku ñuul dafa am complex gis nga ko sax bu ab tubaab jógee France rek nga yëlëng yëlëngi topp ci kaw yéegéer yéegéer yéegéer gàddul ko saag bi waaw ab tubaab bu jógee France sax nga yëlëng yëlëng yëlëng gàddul ko saag bi topp ci kawam bu ne bonjour nga ne bonjour oui monsieur ñun dañoo doyadee doyadee doyadi doyadi bi jiggi na dayoo ab naar bu jógee Arabie Saoudite neexal baat tuuti nosal ko donte xamut dara bu julli jotee nga jiital ko muy wax yu kenn xamul dañoo am complexu nit dar bu weex moo tax Seydi Seydi Hadj Malick daan na wax ne mu ne sëñ kër si daan na wax ne ah doom ni der bi ñuulee la weexee nag ni der bi ñuulee la weexee ñuul na kukk waaye weex na tàll ci biir seydal xaaji Hadji ba muy dem Màkka fasul yoon yéene yegg rek def ajam ñibbisiwaat dafa façon yéene toog foofu ba génn àddina rawati nag ba mu demee ziyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa la façon yéene toog genn góoru naar ndeke mu ngi koy seetlu te booba bu ñuy jàng rawdu yonent bi jàngukaay la daara la bu ñuy jàng Seydi Hadj Malick day ñëw toog léeg-léeg Masara Cang mu randu participer bu participer rek gars yi ne déglu leen waa Soudan bii xam nga ñoom dañ ku mas a ñuul rek dañ naan sudaan nga jógee déglu leen Soudan waa Soudan bii li muy wax leer na nañ ñi te neex naa dikk Maodo commencé bokk ci ñiy àtte bokk ci ñiy jàngale ci rawdu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye doon noo ko alfa hashim mi nga xam ne moo doon magu Cheikh Omar alfuuti alfa hashim jàngale na ci rawdu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fanweeri at nit ñi xamuñ xamuñ li xew Sidi Hadj Malick foo ko gis mu dem rek lam moom lay jëli alfa hashim boobu moo taalif daarul habibi bii ngeen di dégg xulubuha xulubuna tahwaha bi sëñ Abdul Aziz Dabaax daan woy daarul habibi qulubuna tahwaha daarul habibi boobu Alfa Hachim moo ko woy ca raw du yonent bi la nekkoon fii la jóge woon Sénégal gi Fuuta gi def mu jaawara dem Medinatul Munawara toog fa di boroom xam-xam bu mag moo tax su ma gisee ba yii am duma tudd turu kenn waaye xam ngeen ñii di gàttal tubéy saqal sikkim jël loxo teg ci dënn di saaga mag ñi muy wahabi yuuna yi makkatal mukarram ak medinatul munawara balaa balaañ koy récupérer nii bañ nekkee medinatul munawara alfa hashim nekk fa dañ naroon a toj rawdu yonent bi ndax dañ wax ne bàmmeel tabax ko di ko ziyaar dafa xaraam dañ ko naroon écraser def ko comme baax ya ñu sélectionné soixante-dix boroom xam-xam ne buñ d'accord ñu toj ko ñu toj ko buñ d'accordul ñu bàyyi ko 70 yooyu ñu sélectionné woon Alpha Hashim ci la bokkoon ñuy wax di wax di wax bañ ne léegi 70 yi dañ ciy sélectionné 33 ñu sélectionné waat yeneen 33 Alpha Hashim bokkaat ci pour rek rawdu kenn du ko tabax biñ demee ba sélectionné 33 yi ñu ne pour bëgg rek écarter Alpha Hashim ñu ne dañuy sélectionné waat yeneen vingt ñu sélectionné waat vingt Alpha Hashim mbokk ci te concours la ñuy def vingt yooyu léegi ni ñu ne nag dix la ñuy sélectionné ñu sélectionné waat dix Alpha Hashim mbokkaat ci ñu ne léegi dix yi nag quatre rek la ñuy sélectionné bu quatre yi d'accord ñooy représenté ulul azmi minar rusuli ñu sélectionné waat quatre Alpha Hashim mbokkaat ci quatre yi bokk ci ñi plaidé ba tey rawdu yónnante bi buñ ko tojul Alpha Hachim ci la bokk loolu la Seydi Hadji Malick royee Alpha Hachim bam nekkee ci rawdu ma nag léeg-léeg gaa yi juum wala gaa yi di atte mu ñëw participer léeg-léeg gaa yi di jàng mu ñëw participer ba yàlla dogal nag Alpha Hachim eh, Seydi Hadji Malick menn mag gis ko ci magu naar yi bàyyi ba ñibbi këram mu ne ko yow sa xam-xam bu rëy bii ma dégg ngay wax li ma wóor mooy boo toogee fii sa xam-xam bi day niil te ngaa dellu fa nga jóge woon toj ko defar ko mu ne ko Maodo ne ko waa baax na dégg naa li nga wax ca guddi ga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwal boppam ne ko jox naa la ndigal nga ñibbi senegal defal ma sama mission li ma bëgg ci la Maodo delluwaat nag ca Kaaba ga tàggu tàggu kaaba gi ne yàlla maa ngi lay ñaan su ma ñibbee senegal yàlla bu ma kenn xam waaye maa ngi lay ñaan lañ fay tiitaroo ci diine mu sell mu bari ak i néew yàlla la ca ëpp yàlla na jaar ci sama loxo muy ay jàkkaa ki juma moom la diine di tiitaroo maa ngi lay ñaan la ca ëpp yàlla na jaar ci sama loxo yaakaar naa yàlla nangul na ko mu ne ko bi ci des nag maa ngi lay ñaan loo ma nar a defal tey jii dencal ma ko ba ëllëg moo tax ma déggee ku naan Maodo wilaaya am nangam dëgg la am na lum ci wane tuuti rek waaye jëfewu ko lum ci mën a doon xaala koy not rek ba mu def ko waaye du lu muy lu mu am du lu mu am intention pour def ko fa tabaarakallaahu ci la ñibbisiwaat màkk dama ko dëgg dama ko tënk sax waaye ba muy dem jaar na Égypte mufti Égypte yëpp nangul ko xam-xamam mujj jàngale na fa weer ak lu teg ci université Caire boobu moom Seydi El malik Malick Alexandre ba fa jógee moom Seydi El Hadji dem na ba uni union soviétique bii Moscou waaw union soviétique bii ngeen di dégg Seydi El Hadji dem na fa teg na fa zawya ba léegi ba fi may wax yow zawya baa nga fa ci union soviétique te booba kenn ñemewu fa dem Seydi El Hadji jaar na fa roye ko sëriñam Cheikh Omar union soviétique boobu union union soviétique union soviétique la tudd tojagul Russie bii tey Maodo jaar na fa fa tabaarakallaahu ba bim ñibbisee nag nekkaat tiwaawan waawoon nag la mu daan def mag ñi nag gën di ko wuyu si Seydi Hadji Malick nag di gën di élargir ay daaram commencé nag di samp Fuuta ñii mu yebal leen Fuuta ñii mu yebal leen Saalum ñii Jolof ñii Siin ñii Côte ñii commencé nag di toj réew mi di génn ba bañ ko laajee lu tax ay Lagos ak nigeria yooyu jubluwoo fa mu ne aw sa warkat lañ moo tax boor boobu bàyyi na eh, du ma fa jaar moo tax ñu bari dañuy foog Maodo moo bëggul a dem Nigéria ak Lagos bi mu fiy ne parce que bañ ko laajee dafa ne aw sa warkat lañ moo tax du dem ci ñoom moo tax demu fa de waaye boo gisee kuuru boobu yëpp Burkina Faso fu mu mën a doon Seydi Hadj Malick yebal na fa muqaddamam waaw waaye côté bale moom bañ ko laajee dafa ne ay warkat lañ moo tax fa tabaarakallaahu kii mooy Seydi El Hadji Malick ci lii lañ di tënkal bu eh, bu beneen yoonee nag ah bu ko yàlla dogalee ñu masal leen ci lenn lu nit ñi doon woowee ne wilaaya la Seydi El Hadji Malick def ko maanaam xar baax eh, astafra kiraama luy niru xar baax Seydi Hadji def ko bokk na ca boobu laay jeexale am na bés soxna euh, Safiyatu Ñang Sëñ Abdu nee na dafa ñëw Seydi malik dafa ragaloon sedd dafa yoroon sedd nee na euh, soxna Safiyatu Ñang ñëw boyalal ko ànd bi bem bem bem boy mu jël ànd bi teg ko ci suufu portemanteau bi fekk boobu Maodo ngi wekk yéreem noonu mu ne bi mu ko tegee rek di génn moom soxna si fëlaale mbub mi mbub mi ne birëb ci ànd bi ci ànd boo xam ne boy na ba xal yépp xonq mu ne soxna si ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne fekk Seydi Aj Maalik nga toog ne la ca koñ ba mu ne ko Maodo sa mbubb mi dana lakk mu ne ko astaghfirullah safiyatu Maalik lu taq ci moom du lakk inchaa allahu soxna si yëkkati mbubb mi nee na gisul sax lu ca takk lu ca takk waxuma la ak luy lakk loolu niru na kiraama fekk du kiraama yaramam moo saf yàlla saf salaatul faatihi saf yonent bi saf Cheikh Sidi Ahmada Tidiane yi ba taq ci yaramam du lakk salaamualeykum wa rahmatullahi diine singaari yow lanu wooloo